Euh, li ma bëggoon euh, d'abord wax dañuy sant suñu borom yàlla bi ñu sàkk ci kaw suuf di julli ci yonanteem Seydina Muhammad sallallahu alayhi di nuyu mboolem sénégalais muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw di nuyu suñu kilifa yi kilifa diine yi ak kilifa aada yi di nuyu militant mouvement Demain c'est maintenant di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni euh, journaliste góor ak jigéen wuy si ngeen fii ci cité Scat Urbam ci siège mouvement Demain c'est maintenant jàkkaarloo bi nga xamante ni bëgg nañ ko amal ak yéen pour mën a wax ak sénégalais yi ci suñu gis-gis en tant que mouvement Demain c'est maintenant ci lu jëm ci suñu réew siège bi nag di ngeen ko gisee siège bu bees la ñu ngi commencé di teg bagage bi ndànk-ndànk di yaakaar ni bu soobee yàlla ci kanam dinañ mën a dinañ leen mën a accueillir ah ci ay anam yoo xamante ni Euh, yu yu leen di permettre ngeen mën def seen liggéey parce que xam nañu solo euh, maanaam taskatu xibaar ci réew rawatina nag ci réew boo xamante ni mi ngi wuyoo démocratie gannaaw loolu bi ñu génnee ci feetu korité bi ak Pâques bi ak li ñuy woowee bés bi ñu jagleel ci àddina bi liberté de la presse demain c'est maintenant mi ngi sargal jullit yi chrétiens yi mais aussi liggéeykat yi gannaaw bi ñu célébrer premier mi mai bi passé fête du travail mu doon euh, occasion bu am solo ci waxtaan ci lu jëm ci liggéey ci suñu réew mais aussi ci lu jëm ci ñàkkum liggéey ci sunu réew rawatina ci euh, pour ndaw ñi gannaaw loolu mouvement Demain c'est maintenant amal na ay waxtaan yu yaatu ci membre yi ku nekk nga joxe sa xalaat ñu ne ci lu jëm ci Sénégal am na ay ponk yoo xamante ni yu am solo Euh, war nañ cee mën a waxtaan ponk bu njëkk bi mooy ni ngeen ko xamee charte bi nga xamante ni F24 te Mamadou Mbodj teewal leen ko fii euh, ñu war ko saytu xool lan moo war a nekk suñu taxawaay en tant que mouvement demain c'est maintenant beneen ponk bi mooy euh, kàddu yu njuuti réew mi yëkkati jëmale ko ci mboolem kuy yëngatu ci Sénégal yow yaa xam ci wàllu politique la walla ci anamu citoyenneté tàllal loxoom ne dafa bëgg ñu ñëw waxtaan ak moom diisoog moom loolu ñu war cee yëy yi bi ci tegu mooy li xaw li xew ci àddina bi li ñu mooy réew yi ñu wër walla réew yoo xamante ni xaw nañu sori mu yitteel ñu itam ci lu jëm ci maanaam li ñuy laam-laame depuis ay at léegi euh, ñu koy woowee troisième mandat walla troisième candidature bu président Macky Sall suñu gis-gis ak suñu position mouvement citoyen demain c'est maintenant mooy que ñun ànduñu ci ànduñu ci président Macky di wut ñetteelu mandat dañu bëgg géew bi ñu yaatal ko ci bépp sénégalais nga xamante ni réunir nga li ñuy woowee condition d'éligibilité pour nga mën a participer ci élection yi mais aussi pour nga mën a voter parce que voter dafa nekk loo xamante ni lu am solo boo nekkee citoyen ñu ne itam dañuy yëkkati suñu kàddu wax ko nu mu gën a leere ñun dañu jàpp ni liberté muy liberté ku ci nekk ci ñun walla liberté yi ñu bokk dañ ko war a aar dañ ko war a sàmm bi ñu waxtaanee ñu ne loolu gis-gis boobu ak charte F24 bi nga xamante ni jot nañ ko jàng gis nañ ne ñun war nañu signe charte bi bi nga xamante ni F24 moo ko euh, initié te ma fàttali ko Mamadou Mbodj représenté leen fii rax ci dolli ñun dañu ne bu ñu yem rek dinaan dañuy signer charte bi ne d'accord ñu ci troisième mandat mais dañu ne bépp leader bi nga xamante ni signé nga charte bi da nga war a jël engagement ci kanamu sénégalais yi ëllëg bu fekkente ni dénk nañ la réew mi wala nga bokk ci ñi nga xamante ni ñu dañ la dañ leen dénk réew mi nga engagé wu ko troisième mandat doo ko tudd doo ko dox doo ko jëf mu leer ndax Sénégal sonn na ci débaaw troisième mandat te loolu bu ngeen ko seetloo depuis 2011 2012 ba mu am ay nit yoo xamante ni ñàkk nañ seen bakkan ñeneen ñi ñu gaañu ci nit ñi jaxasoo borom ñi nga xamante ni dañu am seen liggéey ñu yow yàqu ñu ñëw yàqu ko loolu ñun dañuy jàpp ni dañu war a engagé wu ñoom signataire charte F24 bi ci lu leer a leer que affaire u troisième mandat bu leen bu leen sénégalais yi joxee réew mi yàlla rek moo xam nag kan lañ koy jox du ñu dugg encore ci affaire u débat troisième mandat ñu teg ci ni dañu war a euh, maanaam yaatal géew bi wax naa ko mais dañu war a am ay waxtaan waxtaan yu yaatu parce que sénégalais Sénégal plutôt dañ koo bokk Sénégal wax nañ ko waxaat ko réewu jàmm la réewu diisoo la loolu moo tax bi njiitu réew muy yëkkatee kàddoom ca d'abord message 3 avril bi passé ci feetu l'indépendance bi ba ci korité bi ne mi ngi tàllal loxoom les force vives de la nation pour ñu ñëw waxtaan ñu ne ah ñun de mouvement demain c'est maintenant suñu gis-gis niñ koy waxee co-construction maanaam tabaxandoo sur le principe ku ñu woo ci waxtaan ñun mënuñu ne duñ ci bokk waaye li ñu wax njiitu réew mi booy tàllal sa loxo ne ñoo leen ñu waxtaan foog nga leeral ci li ñuy waxtaane boo ko waxul dina xaw a jafe nit ñi mën a wuy si euh, maanaam ci euh, ci waxtaan boobu bi nga xamante ni invité nga leen donc nañu wax ci lu leer lan moo sumb waxtaan bi lan mooy ponk waxtaan bi xam nañ ni ñu ngi ci ay élection te loolu aussi ñun am nañ ci gis-gis gis-gis bi mooy élection yi dafa war a leer dafa war a ubbeeku dafa war a ànd ak dal war a ànd ak jàmm mais aussi dañuy ñaan dañuy ñaan parce que processus révision liste électorale bi jeexagul ñu ngi fu mu nekk nii ci phase contentieuse bi le 6 mai normalement lañ ko war a lañ ko war a tëj ñun dañuy ñaan avant ñu ñu koy tëj ñu prolonger ko ñu prolonger ko ci diir boo xamante ne bu yaatu pour ñu mën Sénégal ñu may sénégalais yi ñu mën a bindu ñi nga xamante ni mosuñu woon bindu surtout xale yi jeunes yi dañu bëgg a participer te carte élec électorale wala carte d'électeur plus précisément mooy loo xamante ni citoyen war na ko mën a jëfandikoo saa su ne en tout cas bu ñu nee élection yi jot na nga dem voté ji. nga tànn koo xamante ni wóolu nga ko pour mu mun mu mën a doxal ci loo xamante ni dina jëmale réew mi ca kanam donc nañu euh, yokk diir bi pour nit ñi mën a dem bindu ji parce que élection dafa war a nekk célébration de la démocratie warul nekk loo xamante ni dañ koy tëj ku nekk ñu xañ la sa droit déedéet dañ ko war a ubbi loolu nee nañu nañu permettre citoyens yi dem bindu ji mais aussi ñu mën a dem voter ji ci ay anam yu leer ci ci jàmm ak salaam ñu teg ci ne ñun euh, li ñuy woowee tabaxandoo dañ dañ cee sax dañuy woo Sénégalais yi ñu gën koo dooleel ñu gën cee bàyyi xel parce que tabaxandoo mooy tax réew jëm ca kanam te ñu ngi rafet rafetlu itam depuis bi ñu lancé maanaam euh, vision co-construction bi nga xamante ni demain c'est maintenant def ko porter am na ay leaders yu bëri muy parti politique yi muy mouvement citoyen yi ba ay kilifa yoo xamante ni sax dañu am ay ndombal tànk ñu ngi leen di dégg ñuy wax vraiment lu baree bari ci lu jëm ci ko construction maanaam tabaxandoo loolu mooy euh, donte ñun mouvement citoyen demain c'est maintenant barki démb la ñu judd gis nañu suñu xalaat ñu ngi ciy bàyyi xel te loolu dañ koy rafetlu du au contraire dañ koy encourager amul dara loo xamante ni def ñu ciy metti au contraire ñun lu ñu bëgg mooy suñu idée yi ñuy avancer nit ñi mën koo relayer ba mu gën a am doole. Euh, ci loo xamante ni lu mujj daal euh, gis nañu itam senegal li ko wër xaw na euh, bëri ay yëngu-yëngu gis ngeen Burkina Faso bi. barki démb rek am ay sénégalais yoo xamante ni dal nañu seen kaw ba fu mu nekk nii ñu ngi xool niñ leen di rapatrier kon nag bu ñu nee ah li xew Burkina façon walla Mali ñun concerné wuñu nañ ci bàyyi xel bu baax Soudan mi nga xamante ni aussi am na ay yëngu-yëngu gis ngeen am na ay sénégalais yu fa nekk ñu war leen indiwaat fii itam ci réew mi donc gis ngeen Soudan ak fi mu nekk euh, bu ñu nee aussi li xew Soudan ça ne nous pas li xew république démocratique du Congo itam lu ñu yitteel la lu xew Palestine xam ngeen Sénégal moom mooy président du comité des droits inaliénables du peuple palestinien depuis ay ati at depuis les années 70 ba tey Sénégal moo jiitu jiite kuréel boobu bi nga xamante ni mbirum Palestine moo ko moo ko tax a jóg ak yeneen Euh, réew yi nga xamante ni lu mel ni Ukraine guerre bi am diggante Ukraine ak Russie loolu aussi bàyyi nañ ci xel bu baax dañu ne Sénégal ak histoire bu rëy bi ak itam sa position géographique ni mu nekkee ci àddina bi position bi mu occupé ak suñu valeur nag li nga xamante ni ñun dañu am nu ñu yàlla bindee ñu am ngëm-ngëm loolu nañu fexe ba àddina bi mun koo mën cee profito ci wàllu jàmm loolu la ñu woote di wax ni daal euh, Sénégal moo ñu yitteel tabaxandoo moo ñu yitteel demain c'est maintenant dafa ñëw bokk ci langue bi maanaam joxe xalaatam mais aussi soobu ci soobu ci liggéeyal réew mi ndax réew mi dafa laaj ñun ñëpp ñu jóg te ñun jóg nañu ñu ngi leen di gërëm di leen sant.